cant ak ngërëm ñeel na leen rek ñu yéen li gën a fës ci xët yéenekaay yi niñ koy defee saa su ne rawatina rek tey ci altine gi nga xamante ni rek ba tey ci weeru octobre ñu ànd ak octobre rose coow lu nekkul Sénégal li ko waral nag léegi rek ñu daal di koy faram fàccee gannaaw li gën a fës ci xët yenekaay yi dañ koy door rek enquête moom enquête daal di dikkaat crue du fleuve Sénégal et inondation la ko daal di dippee l'heure est grave ñu ne ko déet waaye mu ne foofee nga xam ne rek moom moo di ca diwaanu Bakel président Bassirou Diomaye Diakhar Faye naka ni week-end bi naka la fa daal di dem fofé nga xamante rek mom moo ci ca Bakel ci walum organisation des secours yo nga xamné rek plus de 774 ménages lañ daal affecté ci li nga xamante rek moo dina mel 500 euh, chavir tamit magasin mu melni rek ñu ci upp ñak nañ seen dëkkuwaay ndox ndox gu bari bobé nga xamné rek sonal na leen waaye itam ñu ngi xamal ni ki nga xamante rek mom moo di Bougane Gueye Anta Babacar Ngom ak ki nga xamante ne moo di ak Pape Djibril Fall ñom wa sam sa kàddu nak tooguñu benn yoon di suñu ginnaaw benn yoon ndaxte itam dañoo daal di dem rek wane seen cofeel fiddali seen kóllëre ci askan googee nga xam ne rek ñooy daal di yeewoo foofee nga xam ne rek moom moo di ca diwaanu Bakel moom enquête ca wet ga daal di indi wàllum diffamation Mimi ma ngay toppi foofee nga xamante ne rek fa mbaxane doonee benn mu di wàllum yoon ki nga xamante ne moo di journaliste bi nga xam ne rek moom moo di Cheikh Yérim Seck fan la waan leen di mujjee ak i gëtam enquête dina ci dikkaat élection législative de Touba à Bakel l'opposé d'une opposition qui se cherche nak mu melni jamono gi nag ken togatul lu way mën mang koy def ne rek ci election yi nga xamanteni rek ci lañ daal jëm les échos daal dikkat ci li nga xamanteni rek mo xew naka ni week bi ñu mu leen ko carrément nak ki nga xamanteni modi procès Adji législatif scandale dafa melni weekend bi rek Sénégal ci la nek sunko cogne l'opposition ni le les échos daal je veux une majorité écrasante à l'Assemblée nationale même le premier ministre Ousmane Sonko mon d'Adi Hamlet. di ci on a récolté 500 millions en moins de 3 jours je veux 1 milliard avant dimanche Ousmane Sonko n'est pas là dimanche bien milliard la bëgg ñu tege ci taabal bi ndaxte kat jamono gi am milliard mu mel ne rek ki nga xamante Ousmane Sonko mon d'Adi Hamlet. c'est zéro scandale à l'ONAS et à mu mel ne rek ki nga Ousmane Sonko nag daa solol robe avocat nga xamante ne rek moo di Cheikh Tidiane Dieye bu ONAS yemul ci loolu ak ki nga xamante ne moo di Jean Michel bu ACR ndaxte ñëpp gis nañ discours boobee nga xamante ne def na ko gannaaw bu mu woowee ki nga xamante ne moo di Jean Michel sur scène Ousmane Sonko ne ko doxalal lépp luñ lay toppee amul wala naam luñ lay njuñ daajee amul dañ loo bëgg a takkal waka tilimal rek mu mel ne rek les échos mi ngi koy bëral ak fisal ba tey trafic d'or 2 milliards de versets boobee nga xam ne rek ñi ngi koy daal di wax ci li nga xamante ne rek ci élection législative yi waaye itam secteur privé bi fàttewuñ ko benn yoon blocage de ces activités Sénégal di laajte kookee ba léegi kan la kan mooy Abdoulaye Sylla l'homme d'affaires borom Ecotra mel ni rek les échos moom tey Abdoulaye Sylla la daal di xëyee moom Abdoulaye Sylla yemul ci loolu Abdoulaye Sylla nag lâche ses missiles contre Macky et Sonko mu mel ni rek lañ ko doon jiiñ lañ ko doon tuumaal moom Abdoulaye Sylla jug na nag fas yéene wax ak askanu Sénégal nee na ngaa jub jubal jubbanti avant de redresser il faut être honnête nee na kat balaa ngaa li fi ne kan lay waxal ndax Ousmane Sonko samay kàddu yamul ci lolu mom Ablaye Sylla nee on a voulu m'éliminer et récupérer mes marches kan lay waxal ndax président bo won di Macky Sall waaye ak lu ci mënti am à travers Xibaar TV HD Abdoulaye Sylla wax na lépp lu ko metti batay les échos dikkaat ci Abdoulaye Sylla nee je veux être je veux mettre mon expérience la di wax d'opérateur économique au service de la création d'emplois on va donner à notre jeunesse nee na nag li war ci askan gi dinañ ko def li war ci ndaw ñi dinañ ko def lépp lu war pour jàppale leen moom Abdoulaye Sylla bu Ecotra dikk na te ne dina ci dox kem kattan les ko ba tey nee na ki brutalisé chemise ñu daal di koy xotti arrêté ko ba noppi placé ko ci li nga xamante ne rek moom moo di en garde à vue tey ci altine gi foofee nga xamante ne mooy ci diwaanu Bakel ki nga xamante ni rek moo di Bougane Gueye Dany moom bu tribune bu dee média dina nga xamante ne mooy ca Tambacounda mu mel ni rek ki xamante ne moom moo di son avocat maître dinay dem dina dem on espère que le dossier euh, sera classé sans suite maître et la ko wax ndax dossier bi dina am mujjantalam do am mujjantal maître El Hadj légui les dina la di leer Walf Quotidien dal di dikkat ci li nga xamantene moy restriction des libertés des opposants la loi du plus fort non lañ ko dal di xamlé est toujours la meilleure am nak amul la gendarmerie accuse Bougane de refus euh, tenir une rébellion c'est ridicule loolu que laa di xam la maître El Hadj Diouf mooy daal di wax il sera au procureur tey jii nag nag ci altine gi nag foofee nga xamante ne mooy ci diwaanu Tambacounda dinañ daal di topp li ne mbir xool fan la fas yéene mujjee i gëtam moom Bougane Gueye Dany naam nag gis nañ coow li nga xam ne nee na cour Anta Babacar Ngom biir ki nga xamante ne rek moom moo di Thierno Bocoum ak Pape Djibril Fall di suñu ginnaaw benn yoon Vox Populi daal di dikkaat méga meeting bi nga xamante ne rek am na foofee nga xam ne mooy ca Dakar Arena mu doon loo xamante ne rek ñu ne ko one by one show the l'année show of the year ñu ne kan moo fa def ñu ne kat waa patriotes nga xamante di Ousmane Sonko les révélations sur la guerre du sur contre le pouvoir Ousmane Sonko 500 millions la dajale ñene fi ak dimanche 1 milliard la bëgg dina am ak du am ak lu ci am nak jamono gi Sonko dal dinay téye réew mi daal game il est le maître du game du samay cadre askan ge ko wax Alioune Tune ci tension politique bi nak ma ngay wax nak ci li nga modi pacification des relations entre pouvoir ak li nga xamante modi opposition bi arrestation ci Bougane batay rek askan wi di ko waxtaanee foofee nga xam ne rek moo di ci samedi bi moom chef de l'état 117 sénégalais la ñu daal di rapatrier volontairement foofee nga xamante ni rek moo di ci diwaanu Libye ñu daal di ñibbi siwaat seen dëkk fas yéene toog août moom tribune njiitalu des médias Bougane Gueye Dany excès de pouvoir lañ ko daal di dippee naka ni tey nag ci àlla la une bi li gën a fës ci xëttu yéenekaay Bougane victime de son engagement pour Bakel te kat dañoo jël seen dërëm ak seen i ñaar dërëm fas yéenee dimbali askan nga yeewoo ca Bakel mu mel ni rek waa sàmm sa kaddu nag jotuñoo àgg wala sax naka balaa ñoo àgg sonn nañ Bougane Gueye dane ñu ngi xamal ne chemise bu xotti nañ ko sàmm sa kàddu nag ñi ngi dénoncé li nga xamante ne moom moo di bile règlement Amnesty International exige la libération ñu ngi ko ci daal di wax population de Bakel ñeneen kat dañoo mer ba daal di futtu tal ay pëna nee na kat bëgguñu dara jamono gi nañu bàyyi bugaan ci nii wala ñu bàyyi bugaan ci naa ak lu ci mënti am ki nga xamante ne rek moo di tribune mi ngi koy fësal bu baax a baax lu jëm ci walum élection ba tribune Sonko lave à grand jeu Jean-Michel sen sur les scandales de la serre biram sec nak diko xamal le scandale est consommé depuis qu'il a accepté euh, sa euh, négociation wala sa renégociation mu melni rek coow li nag am na waaye ñeneen Sonko da ko bëgg a setal dina setam du set ci Guinée d'ailleurs, manœuvre tout blanc autour d'une euh, car euh, cargaison de fer de 4 milliards de francs CFA l'observateur a euh, ko daal di fësal méga meeting Sonko en super héros non lañ de un gentleman Sonko un héros Sonko don ko xam rek méga meeting bi def na ko foyeef la mom mi nga xamante un milliard lay a. mom Ousmane Sonko moo ko wax du samay kàddu de nee jamono am na milliard luñ ci am un milliard déclaration polémique way itam coowal ASER coowal ONAS société civile mu mel ni rek jamono gi Ousmane Sonko dafa mel ni rek dafa defoon bile meeting pour tontu ñëwee nga xamante ne boobee ba léegi ñu ngi wax ci ñoom rawatina rek li nga xam ne mooy nguur yees gi am nag amul ak lu ci mënti am rek toppal xibaar TV HD bés bi le jour daal di dikkaat liberté sinistré li de gëm sa bopp mu di Bougane Gueye Dany brutalisé na Bocoum Anta Babacar ña ngoy dénoncé la gendarmerie avant la sécurité ba tey Bougane Gueye Dany ne nañ dafa bañ nangu wala sax jëfe li nga xamante ne rek moo di yilee ndigal ko daal di meeting bi moom bés bi c'était giga test mu mel ni rek li nga xamante ne moo xew foofee nga xam ne ca Dakar Arena jéggi na dayoo waaye li ci gën a fës ak lañ ciy gën a bëral Sonko nee na un milliard la bëgg soxlatul 500 millions de francs CFA ndaxte am na ko ba noppi day fay sàppali rek naam saf na ba noppi waaye ASER ak ONAS nag mu mel ni rek jamono gi Sonko nag da leen daal di jël boot leen ci li nga xamante ne rek moo di ginnaawam Bakel en soins d'urgence mu mel ne nag jamono gi nag askanu Bakel nag mer nañ ba daal di futt ci loolee nga xam ne rek xew na mobilisation des ressources, qu'on collecte Bougan, COP mel ni rek te jamono gi Sonko ma ngay am waaye Bougane ma nga ca ndungu siin fan la fa yéene mujjee ak i gëtam ak lu ci mën ci am doy na waar waaye ñeneen ak lu mu métti métti bu ñu fàttee inondation crue du fleuve Sénégal ca diwaanu Bakel ca diwaanu Tamba askan ga la ñuy dund jéggi na dayo ñàkk nañ seen kër ñàkk nañ seen njaboot ndaxte jamono gi kër yëpp daal di tëmb de quotidien di ko xamal li nga xamante ne rek moom moo gën a fës ci xëttu yéeni kaay ñeneen Sénégal nag da koo limogé Sénégal dafa doyal ci moom munoon nañ bàyyi mu jeexal mandaam du samay wax de Aliou Cissé la askan wi di waxal nañ naka ku ko bañ nag jamono gi nag beneen loxo ngi taxaw di ko xaar ñu ne jiitawaay ca diwaanu Mauritanie ña ngi ko fa soxla ca diwaanu Libye ña ngi ko fa soxla dëkku naar yi ña ngi koy xëccoo mu mel ne rek Aliou Cissé du chemin benn yoon de ndaxte jamono gi ci négociation la toll ndaxte kat Aliou contrat yi dafa bari ci wetam ba xamagul sax kan la fas yéene jël waaye ak lu ci mën ci am ma ngay doxal Premier League Chelsea itam s'incline à Liverpool malgré un but de Jackson mu mel ne rek Sénégal chute d'entrée ci li nga xamante ne rek moo di suñuy ndaw Camp Beach rawatina nag ñi xamante ne moo di suñuy gaynde li nga xamante ne rek moom moo di les lions du Sénégal fas yéene jëm ci bile kan gannaaw bi nga xamante ne qualification am na ci ki nga xamante ne rek moo di Sadio Mané moom moo ko daa ci euh, waral euh, Nacho mu mel ni rek jamono gi Sénégal yi ngi waajal li nga xamante ni rek moom moo di CAN 2025 waaye li coow li bari bari à travers à la une à travers li nga xamante ni rek moo di xëttu yéenikaay yi gën a fës jamono gi nee nañ ki nga xamante ne moo di Sonko ma ngay doxal lu neex waaye Bougane koñe waaye Abdoulaye Sylla daal dinay dëkk ci biir game bi nag fas yéene attaqué Ousmane Sonko ak Macky Sall nee na balaa ngaa jub wala balaa ngaa jubbanti doxalal ba mu neex ak lu ci mënti am rek jàpp leen ne jamono gi lépp loo xamante ne am na ci bile géem du yomb benn yoon ki nga xamante ne Bougane Gueye Dany tey la fas yéene jàkkaarloog procureur foofee nga xamante ne ci diwaanu Tamba. Xibaar TV HD fas yéene ko topp ba mu sës xool mbiru Bougane fan la fas yéene mujjee ak i gëtam jërë ngeen jëf